jàngoroy covid 19 gi di mbas mi ni nga xam ne rek moom lay tasaaroo ci réewum Sénégal bari na ay fànn yu bëri yoo xam ne jamono ji jàngoro yi jàpp na ko bokk na ci itam ñi nga xam ne rek ñooy yëngu ci wàllu làmb nekkee ci département bu Mbàkke janook taskatu xibaar yi la doon amal ngir bekk ci jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ku ne xam na ne bawal département de Mbàkke fii làmb xaw na fee am jafe-jafe donte année yi passé doon na fi am mais amin gi boo xoolee ci ni mu doon amee doon metti parce que nu ne lañ ko doon amalee booba fekk na mu amoon nu mel ñu ñëw ñun doon am joyante bu ñu ci doon def tey bu ñu demee ba lii ñëw tey nee naa lii ñëw nii gàllankooru bébé Yékini rek gàllankooru doom Mbàkke rek àdduna bépp la gàllankoor ñuy ñaan yàlla mi nga xam ne moo ko fi mu jëlee ko fi mu jeex ci jàmm waaye dañuy bëgg ndaw ñi nga xam ne loolu lañ yaakaaroon ñu xool nuñ leen mën a gestoo suñ làmb département fii nii dafa xaw a sooxe parce que dañ doon am lu ma 10 journées chaque année mais moment bi mënatuñoo am 2 journées avant ñuy wax waxu problème mu stade dañ doon am ay 10 journée booy fii ñëpp dañu doon bëre bëre waat ba da nga jox booy avance mu ne la xaaral mais mënatuñ ko am lu tax autorités yi jàppuñ ci làmb ji parce que koo ci dem di ko tuddee drapeau pour làmb mu lay xaarloo te ci tuddee finalu match ku meer sax wala jaune nga dem dama bëgg ñu delloo si waat seen xel xam ni ñun làmb ñoo ko moom te tey ñun fi ñuy yóbbu drapeau Mbàkke bëri na ñoo xam mënuñ ko fa yóbbu tey nawetaan mën na yem ci biir dëkk bi mais doomu Mbacke day dem taxaw Iba Mar wala mu taxaw amitié àdduna bépp di ko seetaan bu ñëwee doomu Mbacke rek sa xol war naa sedd wala ñu ni Boy Niang bu Mbacke wala Zarko bu Mbacke parce que day défendre couleur kon nañu autorité yi gën a jàppale. boobaak léegi seen activité boobee gëj a dox ndax ay làmb amatul loolee tax na nag ñu ne nag jamono ji la ñuy sàkk moo di kilifa yi nga xam ne rek ñoom ñoo nekkee ci département bi ngir ñu gën a gëstu ndaw yooyu nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu làmb te bëri topp ci seen ginnaaw. période boo xamante ni dañuy wax ne dañuy bëgg ko ci mel ni eh, ki nga xam ne moom la fi yàlla jiital mu jiitu nekk suñu kanam muy monsieur le maire mënuñu ko ñàkk tudd ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi fi di ay responsable ñu leen woowee responsable ci département bi ñu leen di tàllalaat loxo ngir ñu ñëw jàppalewaat làmb ñu ciy profité di ko profité di ko njëkkee ci suñu monsieur le maire Abdou Mbacke Ndaw di wax ne booy yi dañoo yaakaaroon làmb doon daj lu nekk ngir làmb làmb daan am ñu ci daan dimbali seen ay waajur di ci dimbali ñi nekk seen ginnaaw dem ba làmb toog nañ parce que léegi mu mat un an et quelque parce que làmb amul àll bi tëggul département bi ci fii Mbàkke tëggul kon loolu day metti ci côté boobu ñu wax ne suñ amee jàppale yu ñu leen mën a taxawu day baax pour ñu jàppale leen ci parce que ñi ngi am na ñoo xam ne ñi ngi xëy ñi ngi wàcc ñi ngi def seen poos mais ku xam mbir moo xam ne da nga caa nekkoon am ci yaakaar mu taxaw ku ne xam ne dina am loo xam da koy soxla leneen loo xam ne itam jotees nañu ko jàmba muy ñàkk jumtukaay yoo xam ne jotees na ko nemeeku ci kuréel gi nga xam ne rek moo ëmb lu jëm ci wàllu ko làmb ci diwaan gi jafe-jafe yi dafa xaw a dafa xaw a dafa xaw a bëri ba mënuñu daanaka pour ñu lim lépp day xaw a jafe parce que boo xoolee ba waree tëgg fi làmb da doon am problème mu stade xam nga sécurité bi ngay jël da doon fay loo xamante ni day metti xam nga ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne day metti lool ci programme làmb te li daan waral euh, fay sécurité bi di metti ak yooyu yëpp xëy na lépp daa nekkoon ci problème mu stade bi tax mu daan jafe waaye yooyu yëpp dañuy ñu ciy soññee rek ngir ñu ñëwaat jàppalewaat làmb taxawu làmb surtout suñu département bii ñu dëkk ñun. ñoom mbëri la itam yëkkati tamit yeneen i kàddu dal ci yenn ci kilifa yi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk file làmb joojee nga xam ne jàpp nañu ne dañu ko desee fu laal jamono jile. te dafa toll dañoo toll foo xamante ni phase boo xam ne dafa jot nag ñu taxaw ñun mbëri Mbàkke yi wane suñu bopp wane ni ñun nekk nañ ay doomu aadama yoo xam ne am na lu nekk suñu bopp parce que nag mënoo nekk ci benn département di dund sport fu ñu déggee drapo Mbacké ñu tudd ko ci làmb yow yaa tax ñu koy tudd ak say moroom te autorités yi ne ci biir dëkk ba jàppale leen nañ la war a jàppale te yeneen sport ñi ngi fi mën naa wax autorités yeneen sport yi lañ gën a favoriser ko làmb te dañ làmb mooy suñu cosaan mooy suñu sport national waruñ gën a fonk dara ci làmb ñuy tàllal loxo nag bépp autorité boo xamante ni yaa ngi ci biir Mbàkke Bawol di ci jiital monsieur le maire ak DG Gallo Ba ndax ñooñu bu ma leen tuddee rek mooy tudd naa autorité yëpp naam nag doomu Mbàkke mi ngi am combat di génn di dem dakaar monsieur le maire di ko jàppale galo Ba di ko jàppale mais am naa ay rakk wala ay frères yoo xam ñi ngi sama ginnaaw amuñ loolu te làmbu ki nga yaakaar ni mooy doon champion ka ca ginnaaw mën na koo ñëw romb ko xamuñ kan mooy doon champion jàppale du yam ci kenn donte nag am na ci ñenn ci ay kilifa yi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk file yuy jàpp ca waaye nag terewul nee nañu nag bu ñu leen ci dollee dina gën. ñuy jàppale la ñu bëgg mais jàppale bi du leen lu dul champion yi fi nekk yëpp kenn ku nekk yaa ngi ci dara waaw même bu làmb tëjoon it doxul du tee nga ne ci dara mais li tax ñu taalal loxo mooy ñun sport bi la ñu am amuñu fenn furut Mbàkke tey jii ku fi man a nekk boo xoolee produit bi fi nekk nii am na bu fi njëkk a jaar te li ñu bañ mooy mujj puso bi mu réer. moo tax champion bu mag bi ñu topp ci ginnaaw muy doomu Mbàkke mu xool idée bu rafet bi mu def ko te soo xoolee saa yu jógee fii nii dem Dakar wala Boy Niang wala keneen ak keneen dangay dégg ñu ni doomu Mbàkke wala Boy Niang bu Mbàkke kon képp koo xamante ni yaa ngi ci gox bi nekk Mbàkke ñu ngi lay taalal loxo nga jàppale champion yi ndax ñu am lu gën a rëy loolu. bu mënee nekk day baax su mënta nekk li nga xam ne ñun moom lañ amoon muy làmb te ko. ñu jàppale ñu gaaw balaa lii fi nekk di ju fi jóge li ñu war a dëgmalaat mu gaaw pare ñu mën caa dem parce que ñun problème boobu mooy suñu problème première bi nga xam ne bëgg nañu dimbali ñu ci muy stade bi pare bañ inauguré ko ci jàmm di fa dugal làmb ji bu ko defee situation bi dina am loo xam ne lu bëri dina ci mën a changer incha allah. côté CDG bi ñu jàppale leen parce que paay yi dañ manqué ay moyens ñi nga xam ñoo gérer CDG bi dañu manqué ay moyens de trop Mbàkke rek ngay gis arbitre bu taxaw di arbitrer sol jiinam. ak t-shirt bu ko neex arbitre yoo xam ne amuñ sax équipement man su ma dee seetaan image damay am lu ma metti Mbàkke ngay gis CDG boo xamante nii amuñ dara dara dara dara dara loo xamante dinañ ne la lii autorité moo ñu ko jàppalee pour CDG bi te ñuy def lu dul jeex ci nawetaan ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon dafa jot nag autorité yi geestu làmb ñu ngi leen di sant nag ndax doomu aadama lu mu yëkkati ci alalam jox la ko sante ko ko gërëme ko na xamoo nu mu def ba am ko waaye tamit ñoom ñoo taxaw ni ñooy autorité ville bi kon nag nañ gestu laa mu xam ne li ñu leen di demandé nii seen wareef la tey man benn autorité du ni doo Mbàkke mos na ñëw ci man ni ma may ma 5000 parce que soxloo ma ko sama dignité mayuma ko mais saa bu ma ñëwee rek ni la jox ma rek dama ñëw dama am bis mbooloo topp sama ginnaaw moo war leen a décrocher yóbbu leen ba dakaar ku ne xam ne ni jóge Mbàkke dem ba Dakar bëri jiwaat ñibbisi dafa metti kon bu ñu lay demandé loolu da nga ñoo war a tijji say bunt yombalal ko mais léeg-léeg des fois da nga siy woo autorité sax mu lay bañ a jël wala mu lay nëbbatu loolu dafa war a jeex. lu jëm ci wàllu ko mbas mi itam ñu ne jamono ji taxaw nañu temm ngir ñaax askan wi ñu bàyyi xel la ñuy wax mesure barrière yi bu ko defee ñu mën caa génn.